ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ثم صلاته وسلامه على أشرف العالمين sayyidil awwalina wal axirin nabiyu rahma allazi arsalahu llahu rahmatan lil aalamin sayyidina wa xabibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaaril aziim amma baadu ayuhal mushaahiduuna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayyikum bi taxiyati lislaam taxiyatan mubaarakatan min indillahi tayiba wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ni yéen a janoog seen télévision bi du sunu label tv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 am yërmande am barke yal na yàlla bokk nu ko defal man ak yéen àdduna ak laaxira bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam jiir satuna bengook ni ko miinee suba su ñu koy ànd di waxtaane sunu diine waaye ñu toll ci wa ibaadu rahman alladina yamchuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu waaye ñu nekk ci walladina yabituuna li rabbihim sujadan wa qiyaama maa ngi ci jaam yi yàlla reconnaître seeni jëf ci ñetteelu critère bi bokk na ca mooy ñi nga xam dañu fonk julli ñooñu ay jaamu yàlla lañ mbokk yi ku ne fi nga toog janoog man xoolal yàgg julli nu ngeen def abali insaanu ala nafsi bashira ñi fonk xam nañu ñi fonkul xam nañu kaay ma wax la nag de billaahi wallaahi wa taala ku fonku julli jaamu yàlla nga ku ko fonkul yaa ngi ci leneen yàlla ko wax de sayduna muhammad firndeel ko ci ay ahadis yu wuute yu yonent bi wax ci wàllu julli ma nekk nag ci di jàngale julli kañ la nit di dem ba mu def ci yow ngay mën di bàyyi guddi ay nelaw di naafila xam nga jaamu yàlla woo gis Moussa dafa war a def effet ci nit ba dina tax doo tooyam ca loolu danga nga dolli leneen xam nga yàlla azaka rek la laaj laaju ñu sarax ci arkaan yi ponki lislaam yi azaka ah, ci ne sarax newu ci sarax ci jëf ju baax fala ko yàlla boole waf alul xayraat foofu la sarax dugg waaye pour nit saraxe day fekk muy azaka xam nga kooru naafi la la nga dégg ko naan la rajab bi dégg naa ko woor quinzième jours bi ko war vingt septième xam nga léeg nga dégg yooyu soobaan quinzième jour bi dafa baaxaw mais Moussa kan ci kan la baax <laughs> yooyu tamit gars yi war nañu ko waxtaane de ah, rajab bi quinzième jour ci kan la baax mooy ki nga xam bu weeru koor ñëwee mu woor ci kooku la baax de waaw vingt-septième jour rajab ci kan la baax ki nga xam ni bu rajab bu weeru koor ñëwee mu woor soo baan nge kazalika mbokk yi dafa am luy jiitu naafila goo dégg ñuy wax tey fekk boroomam fonk juróomi julli yi waaye nit pour julli def ci moom effet fonk julli day ki koy am mooy ki julli di def ci moom effet julli bi def ci yow effet léegi commencé ko fonk moo tax mane ne nañu jàng nan la ñuy julli jàng loolu moo tax fan yi ma doon jàngale ku jëm ci julli bi ñuy tàqalikoo maag ci loolu lañ tàqalikoowee ku jëm ci julli ni ngay netuwaayee sa xol ginnaaw bi nga laabee yonent bi waxoon na ci xadis ne ajibtu liman huwa taahirun bil maa'i gayru taahiri bil qalbi Moussa yonent bi ne ne ki koy yéem mooy ki nga xam ni sangu na ba set njàpp sangu farata sol yére yu rafet tuuroo parfum mais xol bi sotul xol bi setul moo tax laab ñaar la laabu jëmm ak sa laabu xol nit balaa julli na laabal xolam wa iza atayta ila thalaati fa fariq qalbaka min dunya wa ma fiha ma wax la démb ne la alxaaji Mansour nee na nit bu bëggee laabal xolam da koy nettuwaaye ba du iñaan du soxor du iñaan du soxor moo tax ku soxor munul julli julli guy def effet ci moom ku iñaan munul julli julli guy def effet ci moom kuy am koy bañ munoo julli julli guy def effet ci nit su bañee kenn rek kenn kenn su waxee kenn dama kaa bañ na yëg ni moom julli mënagul def dara ci moom <laughs> mbokk yi maa ngi ci niveau bu doy waar de xam naa ni bi wax naa dëgg sunu julli mbokk yi li tax yéegul li tax yéegul parce que Moussa xam ngeen ni benn julli bu yéeg boroomam nitu yàlla lay doon wax naa dëgg de benn julli bu yéegee boromam léegi mu doon nitu yàlla parce que julli day yéeg la yonent bi wax ndax boo ko jullee julli gi day naaw di yéeg dem ba àgg ci yàlla déggoo moo tax mu ne sooy julli jox julli gi cër teral julli gi fonk ko laab ni nga war a laabe laabal sa xol jublu sa boroom kabbar jàng fatiha jàng saar rukkoo wax subhaana rabbil azim wa bihamdihi siggi wax sami allahu liman hamida bu jub xocc est-ce que Moussa wax naa ko ne fii lu ne ngay dégg ay sami allahu liman hamida sa am na ñoom ba léegi xam nga nuñ koy waxee <laughs> ba ñu dalee julli ba léegi mun ñu ko bu jub te billaahi wallaahi li ñu bëgg a mën yëpp ñu ngi koy mën affaire yi moo ñorul nit ñi rek dañu waxante dëgg mais du baat bu compliqué baatu sami allahu liman hamida compliqué wul ku tëju sa néeg jàng ko mën ko te billaahi am na ñoom ba léegi mënaguñ ko Moussa te mën nañ lépp nag lu fekk ay yi génn ñu way ko <laughs> wayee gën a compliqué man léeg-léeg may déglu way ne way wi ni mu compliqué lii lan la ko ne dimane mais boo leen du topp gars yi di ko way waaw benn baat rek benn baat bu gàtt sami allahu lépp nga ne mënoo ko mënoo ko wax normal maanaam jaralu la jaralu la jaralu la nga téléchargé ko toog di déglu ku koy wax nga koy répété mu koy wax nga koy wax ba keroog nga koy mën jaralu la ko te musique bu génn nga répété ko bu leen ñu fontoo am na yoo xam sax ku naan man su ma demee ci yàlla de ah dama naan ko nii laa ko mënee woon demal yow daal demal ne ko laa ko mënee woon xool mbokk yi nañu respecté sunu boroom baat yu ndaw yi ju jox yonent bi jox ñu ko amuñu ci benn respect baatu sami allahu liman hamida baat bu gàtt yonent bi dénkuñu ko amuñu sax respect dem jàng ko ku nekk nu la neex nga koy waxee du noonu yonent bi ne ku julli ni julli ware boo sëlmalee xaalati salaatu yonent bi wax de Moussa nee julli day wax ak yow moo tax bari na ku daaneel tisbaar tisbaar wax ak yow te bari na ku daaneel sa takkusaan takkusaan wax ak yow amul julli gooy daaneel te julli gi waxul yow kay yaa ko dégluwul moo tax maa ngi ñaan ku sëlmal toogal <laughs> moo tax Moussa bu kenn parax paraxee te am na julli yoom du ma comprendre xam nga asalaamaaleykum bëri mel ni li ngay def neexu la am na ñu doyee di non bu ñu gëmloo yooyu asalaamaaleykum nebul bëri mbokk yi ku julli toogal déglu julli mu wax ak yow lii may wax xadis la de yonent bi nee na xaalati salaatu xafidaka allahu kama xafastanii summa tarfaw nee na julli gi boo daanalee jullee ko ni mu ware joxeru ko yu normal yi nga sujjóot normal siggi normal gis nga Moussa sami allahu liman hamida ku ko wax dangaa war ne tekk taxaw bu fekkee yow dong yaay julli sax war nga fee taxaw distance su wala walakal hamdu war nga fee taxaw distance bi demaat ci ruk su jóot ba allahu akbar teg fa sa jë teg sa bakkan wax subhaana rabbiyal a'la lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt nga répété ko trois fois jullee ni mu waree toog taaya taaya normal wax attaxiyaatu lillahi azakiyatu lillahi nga taaya boo waree sërmal boo àggsee ci taaya nga taaya su dee ci diggante su jóot yi boo siggee nga toog tuuti allahuma ixfir lii warzuq nii warxam nii bari na ay façon mais nga siggi wax tuuti ñaan ci ñaan yi ñu àndi su jootaat wax subhaana rabbil ala lu bu gàtt-gàtt ñetti yoon siggi toog boo egsee ci taaya nga taaya ataxiyaatu lillahi azakiyatullaahi joxe taaya ba mu mag mbokk yi yonent bi nee ku ko defee nii ba yegsi ci assalaamu aleykum te de koo centré woo fenn génnoo dem doxe affaire u àdduna xam nga musaa julli li borom laxdar yu wax génneel soxol ci affaire u àdduna nag mais léeg-léeg sa gis koy julli di ci yëppatu man lu may métti mi ngay ciipatu ci biir julli gi laa comprendre lu man xam nga di julli di ciipatu ah, ah man mas naa ko man maa ko mas a dégg man ci jàkka imaam jiite ñu kooku dafa contre imaam Moussa imaam neex ko bu sujjóot bi yàggee sa day ciipatu waaw mais dagg julli bàyyi dem sa kër jullee foofu mais Moussa léeg-léeg sa nga gis kuy julli ci ginnaaw imaam di ñaan yàlla na juum yow yaa ngi sujjóot te naan imaam yàlla na juum rek yow moom julli nga war a bàyyi yaa da nga war julli sax dem toog sa te li may wax xam ngeen ko mbokk yi nii la ñuy julli di caaxaan rek moo tax yonent bi ne ku julli julli gu rek le julli gi danaan la maa ngi lay ñaanal sama boroom yal na la sàmm allahu akbar mais Moussa lii rek jar naa julli normal parce que maanaam ku tol ni julli ñaanal la sàmmuk yàlla lii rek jar na jox julli cër ndax julli neen dalay ñaanal danaan la yonent bay wax de nee na jullee wax ak ne yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga sàmm Moussa mii yàlla nga sàmm alxaaji Mor Ñang mii julleem gii mu julli jox ko cër ngi ñaan nii mu ma joxee cër waaye yàlla yàlla nga ko sàmmee noonu ba keroog muy dem barzaq allahu akbar mbokk yi nee na julli doo ko tàggoog yow ne la bàyyi bàyyi xam nga fu mu ma nga jëm ci xadar ba ci yàlla yonent bi wax ci xadis bi de xadis bi moo yegg daf ne bis bu nit sàgganee julli sànq julli wul normal rukkoo ya defu ko normal su jóodee defu ko normal taxawul normal jàngul fatiha normal jàngul saariya normal julliwul normal xelam ma nga ca yeneen xanaa ko Moussa démb xam nga di julli di seetaan làmb ah sëlmal naan sa waay bi mu koy boot maa ngi koy séen boobu maa ngi julli mais gis xam nga Moussa xam nga yi sérieux waaye waay ah dañu waxante dëgg waay ku julli bëgg classico bi bu dugg nga mën ko nettali boo paree sa waay nañu bàyyi caaxaan mat sa Sénégal doola raw ci biir julli gi nañu bàyyi caaxaan ah loolu jaaduwul yonent bi ne ku jullee noonu nag xaalati salaatu déglul da ngay sëlmal julli gi wax ak yow danaan la dayaaka allahu kama dayatani maa ngi ñaan sama borom yal na la sànq yal na la sànq comme ni ma sànkee mu ta gis nga Moussa ku deful ndànk jullee lay ñaanal nga sànku te fekk yaa ngi julli kat moo tax fa waylun lil musallin am na ñoom jullee leen ñaanal ñu sànku parce que dañoo fonkul julli te donte ñu ngi julli moo tax damay ñaan nanu jullee ni nu ko yàlla sante dana tax julli rek la sunuy problème mbokk yi maa ngi ci fa iza atayta ila salaati fafarix qalbaka min dunya wa ma fiha wastaxil bi muraqabati mawlaaka mbokk yi maa ngi ci loonu di jàngale nu ñuy julle waxtu wi nag damaa dab waaye li may wax rek maa ngi yéen suba su ne ànd ci na bi loo mënta may sa bopp lu ñu ci may nga daal di jël maa ngi ñaan borom bi yàlla mayaat ñu daje maag yéen suba gërëmaat ñëpp santaat ñëpp ñaan sunu label yal na la yëkkati ko sunu directeur Hadj Makhtar Sylla yàlla na yàlla taxawul nu ko biir ak biti bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi yàlla na yàlla may leen ñuy wérelante te bañ di werante ziyaar ci sunu mag sunu sëriñ alxaaji Idrissa Diop rahmatullah alayhi tafsir oustaz Oumar Diop mu yóbbaale ma ñëpp géew mbokk yi maa ngi teg baaraam joxaat leen rendez-vous ñu dajewaat ci jilsatu nabi di jotaayu seydina Muhammad suba iza aradtum salaamatal ardi fattabi'u muhammadan wa aalihi haytal umami mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa man adallu mimman yad'u min